ak say doxalin mbokk yi sellal suñu ko waxee du rek julli ak woor ak yooyu ci la bokk waaye tam sellal sa jëf ak sa doxalin gis nga jullit dafay sellal lépp lu muy def teg ko ci diine diine jooju nag ngay sellal ala lillahi diinul xaalis yàlla mi nga xam ne moo amee diine ju sell moo tax ba muy wax sax daf ni muxlisiina lahu diin maanaam nga sellal say jëf ak say yéene teg ko ci diine mbokk yi يونس بن صلى الله عليه وسلم واحنا في بين حديث بو ام سولو ني جوليت ني دان وارا تباخو كوم باتيما كوم باتيما باتيما تاي بو نيوون سوخلا بن بريك تي سوف دو تي جوت ولا باتيما با ييب نيوي ماب كون دي جوليت ني فوف لان وارا تول واي نك سون تباخو با نوبي كين كو ني دي واخ سا جوس لي ولا في واخ واخ سا جوس مانا واخ لي لا كونسيرني سوغين سيت لو ci semaine yi ñu génn lu nekk wax nañ ci lu nekk waaye mbokk yi gis nga jullit dafay conserver waxam parce que waxam dafa amal yàlla subhanahu wa taala solo jëfam dafa amal yàlla subhanahu wa taala solo looloo tax mu ni wa ma ladayhim illa raqibun atid kenn ku ci nekk jël na ñaari malaaka teg sa mbagg ngir li ngay wax ak li ngay jëf kon loolu yow war nga ko seet man war naa ko seet li tax ma wax loolu mooy tey jii nit même bu fekkee dafa nekk ci safaan ba nu xam ko ci yow jullit bi fexeel ba bu ko jëw bul dugg ci loolu léeg-léeg nag nit ñi nga dindi lu bon ci ni nga tollool gis nga sunuy wax mooy ki jug yeneen ci bi def ni nga jug dindi ko ak sa loxo soo ko mënee soo ko mënul nga wax ci soo ko mënul nga mitit ko ci sa xol lan moo tax mitit lu ci sa xol dindi qui ki qui pouvoir le ni li du fi comme préfet de Dakar ni mu def am jëf qui xamni ni rafet lu ko ci diine ak ci adina moy ay nit ño xamni dañu rek lu len neex def tay ji Sénégal la ñu 95% musulman ngay di di gis ni ñepp ñuy def ay yu ay turi jullit doo ca dégg Jean doo ca dégg pool da nga ciy dégg ñoo xam ne tey da nga naan danoo war a roy ah ci seeni maam roy ci seeni bokk kon noonu préfet def nga xam ne mooy dindi ko boobu mooy bi ci jiitu beneen bi ci topp mooy nga wax mais wax du jëw jëw ak wax du benn xam nga nit ki nga xam ne dafa toog këram nekk ci deru nit kooku dafa jëw wax mooy ki amee baat ki nga xam ni bu waxee ñu dégg ko bu waxee waxam def impact kooku mooy wax daan ah, lii de jaaduwul waaye keneen ki ci des nag nga xam ni xam na ni waxam demul fenn kooku da koy mititlu ci xolam waaw ah, mu ni wa dalika adaaf li iman loolu mooy ngëm yàlla waaye man benn point rek laa ci jël mooy jullit ñu moytu ko dégg naa ñu baree bari léeg-léeg ñu ni diw gis nga ci sharia soo nee diw cagala maanaam diw dafay jaay boppam ku dem fay ko tëddee ko loolu képp ku ko wax na la leer ni am nga bàkkaar yu dul jeex euh, sharia daf lay wax ni diw dafa mooy yàlla rek kenn nga ni diw dafa mooy yàlla loolu mooy diw dafa sëq kenn mu ni soo ko fekkewul tegoo ci sa bët ñeent ñu bokkul fu ñu jóge même yow boo ci tegee sa bët ñu daw génn dan la wax nga noppi ci balaa nga ciy wax wala ñu di ci atte mooy ñeent ñu bokkul fu ñu jóge dañu ñoo fekk leen ñu ni duñ leen fekk rek ñu tëdd de ñoom ñaar te nga ubbi néeg bi mu ni déedéet da ngay fekk ñu mel ni ni guur di dugge ci gën mbokk yi xanaa loolu mooy kon sharia dafa bëgg ko suturaal nit ah mu ni noonu nga koy fekkee lu ko may boo waxee diw day mooy yàlla ñu dóor la juróom-ñetti fukki yar yow nag nga ni diw day jaay boppam mooy ku ko fay rek tëddee ko loolu yow kenn xamul ñaata bakkaar nga am kenn xamu ko kenn xamul tam ñaata yar lan la war a dóor kon jullit dafay moytu lool te li ma jàpp mooy kenn jaru ko kenn jarul jullit bi dem ba ci kanamu boroomam ñu ni ko li nga liggéey lépp jox nañu ko kii kooku kenn rek moo ko jar muy sa ay waajur soo demee bay jëw nga jëw leen sax moo tax ne ni ko ku baax di waxe kon boobu benn la ci muy kon jullit ñi nan rafetal seeni njort ci seeni moroomi jullit même su fekkee am na ñu safaanu ñu fi ñëw rafetlu wuñ ko kenn rafetluwu ko ah ña ko jëli ay moroomam lan mooy ñooñu dañu ñàkk a safaanu comme ñoom dañu safaanu comme ñoom ñu bàyyi leen kon li ma bëgg a wax mooy yow jullit bi nekk ci sa kër di citoyen daal di jullit bëgg lépp loo def yàlla nangu ko lépp lu ñuy wax ba muy juri bàkkaar nga nopp ci moo tax inna allaha ya'mur bil adli wal ihsaan yàlla daf ñu digal ñu maandu sunu maandoo ba pare ñu rafetal maandu premier fois moo tax suñu koy wax ci jàkka ji léeg-léeg da nga nekk ci àjjuma imaam toll ci inna allaha yamuru bil adli wal ihsan wa itaai dil qurba wa yanha an il fahshaai wal munkar wal bagyi yaadukum laallahu tadakkaroun euh, nga dégg ku ne naan amin amin ba jàkka ji ba kenn du teewlu wax ji imaam lim lay wax mooy nga maandu soo maandoo nga rafetal inna yàlla digal nanu ñu maandu maandu nag mooy lépp lu sa yoon nekkul bu ci wax ba di ci jëlee bàkkaar lépp loo nara a ngawti ngawtee nga dem seeti ki ko def ba gis ko nga ni ko gis naa la ah nga def nangam ak nangam sharia da koy tere mooy li ma waxoon ni istaxaltum bi ayubi nnaas wa nasitum ayuba anfusikum mooy nekk ci bi nit ñi fàtte sa bos kenn ku ne am nga loo nekkee ci sa néeg loo xam ni bëggoo kenn xam ko yàlla di la suturaal kon li ci pénc mi yow jugal laaye biir mais bul weer kon nag nanu maandu maandu mooy kenn ku nekk li mu jàpp ni jaaduwul mu jug ka mu concerné mu dem ni ko jaaduwul benn bi ci topp ñu rafetal mooy rafet njortu ci nit ñi bañ rek lu jóg nga tuddee ko nu la neex defee Sénégal rek mooy am kenn ku ne dégg naa mën na cee dem kaso dégg naa mën na cee dem safara allahu akbar du noonu nag القرآن بيوخني من بولين خبار ديكالي دم لين تي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين دم تي سور صوبة فيريفيي نخلي دق ولدين يوتم كي بند كونسرنا نالا كي وخ كونسرنا نالا كم تدون دون نغا غسو سوغا وخ ولا نغا بند لول مو يفي جوليت كون نك سونو باريتي ما نيو رافتال واو inna bi la bil adli wal ihsan wa itaa dil qurba ñu jox ko tam suñu mbokk yi nga xam ne dañuy gën a jege Sénégal la ngay gis koo xam ni yow sa biir kër nit mën na faa deele wala sa buntu kër doo ko wax si gil ndigaale jóge dem ba fongale mi jaale ji loolu ñun rek lay dal nga gis koo xam ni biir fameem ñi ngi ñàkk ñi ngi am ay problème du ci dimbali kenn waaye foo taalee rajo bi wala nga dégg télé bi dégg ne ma ngay maye ay millions ma ngay dimbali kon nag booy dimbali يلا غانا جيغي وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر تغيلو نياو جيغي غيسغا كيب كو خامني ياغي امي نجابوت قو انفسكم واهليكم نار لا القران واخ سوي جوك دي ديف دار دابكو نانيكو بوكو ديف واه بول ديف لي دبو ولك سا دين بول ديف لي دبو ولك سا غور لول سو امون يي خيو ييب دو خيو كون وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي ني مويتو مبيو بوكوي léeg-léeg beew nag ci côté bu ne lay feeñ ah léeg-léeg nit ama ama am ba beew ba nga xam ne defe na ni bu rombee nit ñi nuyu leen sa dara jaam wàññeeku loolu ci beew la bokk beew dina firitam réewande waaw am na ñoo xam ni euh, euh, seen seen seen wërsëg permettre na leen ñu wax nit lu ko neex seen ndombay tànk permettre na leen ñu def nit lu ko neex et cetera et cetera mbokk yi ñu moytu beew ñu moytu ñàkk teggin ñu moytu yooyu yëpp parce que bokkul ci li nga xam ni mooy attitude jullit jullit warul mel noonu kon yooyu dañ ko war a moytu beneen bi ci topp tam mooy ñu amee ngor mbokk yi ñu amee ngor ngor diine daf ko soxla lépp daf ko soxla nit su ngeen àndee su ngeen àndee ci ngor bu ko xaalis jënd bu ko moyen jënd bu ko dara jënd nit su ngeen àndee ci ngor lépp loo xam ne yaa ngi koy def na nga ko wéer ci ngor googu parce que loolu mooy diine waaw gis nga tey nag xaalis dem na ba yàq na lépp xaalis mën na fekk ñaar ñu ànd ay at mu yàq ko mën na fekk ay xarit mu yàq ko mën na fekk ay doomu ndey mu yàq ko mën na fekk ay wëllëre mu yàq ko loolu nag ku ko def war nañ càmbaraat sa diine war nañ càmbaraat sa diine parce que nit dafay nekk jullit su nekkee jullit lépp lu muy doxal mu doxal ko ci njullit maanaam tey mankat maa ngi nekk ak kii li nu boole kóllëre la li nu boole lu bari la tey soo ma joxee cent milliards ma ni man du ma dagg kóllëre googu ndax poñetu àddina loolu jullit def ciy bàyyi xel moo tax yeneen ci bi sallallahu alayhi dafay wax ni na ngeen dimbali seenu nit su tooñee ak sunu ko tooñee xam nga kuy wax ndimbal di wax ba bu tooñee mooy donte ni problème daa am fii yow bul xëcc alquran nee na laa xayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqa aw maaruf aw islaax bayn annaas wa man yafaal dalika ibtiraa mardatillah fa sawfa yutihi ajran azim ne ni yiw nekkul ci julli yeeg woor yeeg yooyu déedéet mooy ñaar ñuy bëgg a tàqalikoo nga daw ba ñoom ñaar ñu àndaat foofu la yiw nekk foofu la jullit piir nekk foofu la li ñuy seet lépp ci wàllu doxalin nekk kon mbokk yi loolu moo doon seen émission addiinu xaq xam naa ci beneen numéro incha allah ñu gën ko yaatal kon ñi ngi leen ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm defal leen ko defal nu ko defal ko julliti àddina bi yépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa